dina ñëwaat euh, annoncé woon nañu fi ab date sax ne le 8 février la ko président Macky Sall daal di naka namm muy remaniement ministériel bi nga xamante ni nag euh, moom la ñu war a def ne ñu sax jamono ji boobu le ma am na prétexte ndax bëri na ci ay ministre ak i directeurs généraux yi nga xam ne dañu daal di nag perte euh, seeni localité ci yile élection locale malgré li nga xamante ni mooy fonds ak milliards yi président de la république Macky Sall décaissé APR décaissé ko ñu ko ñu waroon ci baax campagne jéem a convaincre population gënu jiite woon ñu daal leen di votel ñu foiré mennum benn ministre muy Abdou Karim Sall euh, bu mbaaw moo daal di nag maintenir toogoom foofee nag nga xamante ni nag euh, moom mooy ca euh, diwaanam di diwaanu nag mbaaw battre fa ki nga xamante ni moom mooy nag maire bu Mbao di Abdoulaye Pouye euh, moo tax euh, nak nee ñu nomination bu futur chef du gouvernement ab fonction bi nga xam ne disparaîtroon na ci architecture institutionnelle euh, ci atum 2019 la ko président de la république Macky Sall dindi woon nee ñu nak ginnaaw élection locale yu 23 janvier yi ñu génn ci la war a daaji nag dikkaat non bu heureux élu dinañ ko dévoiler avant le 8 février prochain bu ñu sukkandikoo ci le quotidien mi joxe xibaar xibaar bi ne Macky Sall daal di nag eh, xaar. dafay xaar ba daal nag euh, jóge euh, fii Dakar ngir euh, daal di nag dem investir fële nga xamante ni nag moom mooy ca présidence bu Union africaine ñu war ko fa investir mu war ko jiite ci ab durée d'un an moom Macky Sall ca Addis ba sax la waroon daal di amee nag ca Éthiopie nee ñu nag boobulee investiture am ca présidence bu Union africaine moo tax sax du amati jotu Sénégal ndax moom sax wax na ko nee na nag il faut que mu daal di nag nommer ab premier ministre koo xam ne moo koy daal di gérer li nga xam ne mooy intérimam le temps que mu mën a gérer Union africaine euh, ci diirub at ndax du am temps di mën a boole ñaar yëpp ma ngi ko waxee ca RFI ni ki euh, keroog ca kanamu journaliste yu RFI ak yu France 24 euh, moom mi ne nag à son retour maanaam ci ñibbiseem le 7 février ci la daal di nara décidé nommer euh, quatrième premier ministre euh, ki nga xam ne moo nar a diriger probablement sauf incident majeur euh, majorité direction ak élection législative yu mois de juin yi di ñëw chef de l'État nee na nag yàqamtiwu te nag bëgg jël temps analyser résultats yi yu yile élection locale ci nag loolee la nar a daal di nag diku ngir moom ak coalition Benno Bokk Yaakaar gile di coalition nga mu daal